Euh, siyaar naa la. màggal naa la doom yaay. Euh, tiis bi nga xamante ne dal na ci monde làmb yëpp muy génn àdduna Père Balla euh, noo ko gisee. waaw wax dëgg yàlla tamit am nañ betteel trop ndax wax dëgg yàlla man mii de wax ak yow mos naa fi ñëw ñaari yoon ziar ko si biir bi ndax Père Balla moo ñu yar. dañu nekk xale yu ndaw nekk si école bi lépp si école bi lañ ko defee si kanamam kon ñun tey bu ñu demee tey lu mun mën am si làmb rek Père Balla def na si part responsable bu rëy suñu carrière. di ko ñaanal yàlla nag fu mu jëm mu dàqal ko fu mu jógee di ñaan yàlla tamit njaboot gi mu bàyyi yàlla teg si loxo ñu yeggal ak seen i ba sut seen bàyyi ay fan quoi. waaw anecdote mën a jox loo xamante ni fàttali nga ko ci Père Balla bàyyi na ko ci yow ba def ko ci yow. waaw lim bàyyi si man lim yokk si man mooy jom dama doon ñëw yàlla xam na ni ñëw naa école ba du benn du ñaar su ma tardé entraînement daq na ma samay kanamu ndaw la du benn du ñaar te la ma doon dàqee te Père Balla mos na maa wax benn loo xamante ne marqué na loolu bokk na si li ma def mbër tey Père Balla mos naa ñëw école ba combat Balla Gaye la woon ñu séddale blouson jox gaa jox ñu ma ma nar a mer billaahi ma meroon trop Père Balla ñëw ba si man dama yow doo waroo fay nekk di mer ay blouson yow dañ laa war a solal ay blouson billaahi wallaahi wa taala mu ne ma yow dañ laa war a solol ay blouson mais yow waroo nekk koo xamante ne day toppee billaahi wallaahi wa wax jooju moom xëy na fa mu doon waxee bu ma demee ba ci kanam la ma doon wax wax dëgg yàlla gis naa ko bu baax a baax marqué na ma trop boo xam jooju. billaay wallaay damay tëdd di ko nelawaale di ko yeewaale ba yàlla def li mu def tey billaay wallaay. baax na ñoo far.